yaa ngi ko mais Bougan, mu si lâché exactement benn bomb jàpp ni Ousmane Sonko jamono ji mi ngi nek di euh, manigance ne si fi pour daal di euh, rejeter dina xam nekk moo la candidature bu euh, Barthélémy Diaz mu nekk titre lettre euh, titre tête de liste bu li nga xam nekk moo di sàmm kàddu yi encore des accusations sur Ousmane Sonko na ko na ko daal di pour ngeen xam ne ni Bougane il dit pas la vérité. Hmm. Sonko bu naree faagaagal candidature Barthélémy Diaz pourtant il a un moins très simple pour le faire. muy Sonko il est candidat non. Mm. il est à la tête de liste non. Mm. il peut attaquer recours la candidature de Barthélémy Diaz te mu bu donne une chose légale reconnue par la constitution. xam taxaw di Sonko mu pour Barthélémy bañ être candidat c'est tellement facile. Mm. C'est très facile. Ousmane Sonko tu bu que mu ngi ci pratique oui dina attaquer la candidature de Barthélémy Diaz recours au niveau du conseil constitutionnel te day donné lu légal est-ce qu'il l'a fait hmm. est-ce qu'il va le faire je crois qu'il ne va il va pas le faire hmm. parce que Barthélémy Diaz jaaxalul Sonko Sonko à part candidature je crois que a nakul ci une candidature lan lay taxoy di manigancer pour Barthélemy Ba Diaz baña nek candidat. Barth mënu don risque si mom risque de quoi Barthélemy Ousmane Sonko motax mu à la mairie de Dakar de bu leen faté hmm. les faits sont là D'abord, hmm. Ousmane Sonko a joué un rôle très important l'élection de Barthélemy Diaz à la tête de la mairie de Dakar Yo kooku ngay ne dina jaxal Ousmane Sonko. Qui t'a fallu donc si Bogal le dit ça ne concerne pas Bogal. Ousmane Sonko candidat candidat constitutionnel en étant candidat def un recours constitution candidat candidat The recours ci candidature candidature constitution da koy reconnaître mais est-ce que gis ngeen PASTEF wala Ousmane Sonko ñu dem ñu nous non Diaz la ñu bëggul mu nekk candidat wala warul candidat ñun dañuy conseil constitutionnel qui un recours mais defuñu quoi pourquoi Bougan le dit <laughs> c'est Bougan ça ça n'engage que ñoo coalition. ça n'engage que Bougan. gis nga ragal ni vidéo ragal dina non yëgg naa je suis informé ni que yow ya ngi manigancé pour Barthélémy Diaz baña nek candidat lolou moy wax tapette hmm. Ousmane Sonko si il a manigancé du ko manigancé si suuf day dem recours directement def recours directement ci conseil constitutionnel parce que il est candidat il est à la tête de liste de de sa coalition moo dama ne wax tapette la buggaan wax c'est archi faux ce qu'il a dit. ce sera fragrant pour lui. Oh, voilà. Euh, enfin. non non non non non non non man ni dina ko def il faut qu'on s'écoute Ousmane Sonko def te constitution bi moko, mu def recours candidature candidature recours au niveau du conseil constitutionnel mais alors defu mais pourquoi bougan mu life fam ana njëriñ laay fam di naan Ousmane Sonko sa dégg naa yow ngi manigancer pour Barthélemy Diaz candidature en bañ a il va manigancer quoi xanaa kay li ngay manigancer da ngay bind conseil constitutionnel ne ko man je suis pas d'accord de telle candidature ou de telle candidature. Hmm. loolu la def. Hmm. c'est reconnu par la constitution. donc débat bi nekkul foofu seigne bi seigne Fallou débat bi du fofu xam débat bi fu hmm. dem élection rek. koo wóolu bu fekkee wóolu nga sa bopp demal élection à moins que nga ne yow wóoloo sa nga retiré comme man nga retiré comme mais bu fekkee yow da ngaa wóolu sa bopp da ngay dem élection. nga daganal baat askan wi. ne man dama bëgg ngeen ma. il faut mu am daal. Vous mais la facilité lakatu ci ay micro ak ay caméra di naan non Ousmane Sonko yaa ngi manigancé pour candidature Barthélémy Diaz takku suuf loolu c'est tellement facile de le dire te Ousmane Sonko wanewul ay jëf yu man yu tax ñu wax ko loolu bu wane woon ay jëf yu tax ñu wax ko loolu mooy maanaam dem conseil constitutionnel ne leen man je ne suis pas d'accord je fais un recours contre la candidature de Barthélémy Diaz Ousmane Sonko bu defoon loolu dans ce cas Bougane mën na ko mais manigancé si suuf loolu mooy wax ay wax ay waxu politicien wa yooyu dëgg naa sax yow yaa ngi manigancé si suuf loolu ay waxu politique politicien la hmm. Hmm. yow boo leen réunion yee loo wax ci man mu ngi si sama téléphone <laughs> boo leen réunion yee <laughs> Ousmane Sonko. réunion Ousmane Sonko règne, Ousmane le chef de l'opposition opposition Amadou Ba. Euh, ngay di politique. avant Sonko na fi patriote yaa ngi fépp. da loolu laay wax ni dama ne Ousmane Sonko buy wax dama ne je man man je crois que man. Hmm. man Fallou. Hmm. je crois que man. ça n'engage lépp lu fi ma ñëw ma ma ñëw. lépp lu fi xew xewoon na fi. oui d'accord dama ne. <laughs> je crois que man ça m'engage que man Arfan. dañuy fàttali dama ne ça n'engage que man. Arfan li may wax li may wax nii. ça n'engage que moi dama ne. man je crois que Ousmane Sonko buy toog ci réunion di wax. du tudd tour tour xam nga tur lay ku dem élection ku base politique. mais te mais ku musul dem base élection. ku amul mais de mais base cest haute sécurité mortop. fallo. Fallo. Hmm. musul dem élection. de doole ci ban quartier. haute sécurité tay moo ban haute sécurité Bougane dafa am haute sécurité fallu il faut pas personnaliser le débat sur ça aussi quand même. mais il faut nga réalité politique la dama il faut que tu t'en réalité politique da ngay sëgg bëri ñu nat li nga yor ah xale juddu da ngay sëgg bëri Ousmane Sonko bu démé ci réunion bay wax bay jëw parce que mom lu mu wax ni bon lolen réunion li nga wax ci man mu sama téléphone c'est comme si Ousmane Sonko da koy jëw ci ay réunion maintenant jëw bi Ousmane Sonko je crois que bu naree jëw le chef de l'opposition lay jëw parce que mom amoon na 35 wala 4 34 mm. <laughs> man fofu lay waxee. dana jëw le chef de l'opposition mu ne ah nañu def attention parce que ñi amoon nañu 34 xawma 35 donc man je crains Amadou Ba par exemple lay mais je crains je crains Bougane je crains Bougane non man je crois que Ousmane Sonko le débat n'est pas là Ousmane Sonko bu defee loolu kon mooy maanaam moom wàccee na boppam ci Bougane Bougane maa ko moom bu ñu élection mi sama ma ramassé banlieue bi gagnez gagné ko bu ñu élection yi fi, région de Dakar qu'est ce que c'est la yem amul beneen région n'a nañu dem élection Arfan ak bougan. doo am dara. non du am dara. yow do am dara. Mane bougan, non da dama koy wax yu Macky Sall lu damay xolal damay dem xolal damay voté ba pare dem ba 18 heures taal sama rajo déglu ni ma koy bàccee ci banlieue bi. alors c'est clair mi ngi exactement. donc euh, loolu wax exemple laa na na li nga wax euh, par rapport ak li nga bi exactement sans plus tarder les itam du côté de la régie euh, envoyé ko